Boki Senegal, bokk yi Bayi Khel xel Vision Aksen seen mbokk Arona Cissé di feggoog alxaaji Serigne Malick Guèye Serigne Malick Guèye ngeen xam ko wala ngeen gën ko min ci wér-gi-yaram pajum cosaan ak di waxtaanee garab yeeg gàncax yi ak jur yi waaye nag alaaji malik nak fas yéenee ñëw ci nàmm xel tamit jikko yi jaarale ko ci li nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi woon muy léeb mbokk yi léeb di lu am solo lool moo tax alaaji Malick Guèye andi leen léebu wor ci biir dëkkub mbargaan ci biir péncum mi nekk ci biir dëkk bi di mbargaan ci diggante gaynde ak ñay ak ñi nga xam ne it ñoom la fegool muy seeni nawle léeboon gaynde ak ñay dañoo amoon benn dëkk bu ñu tuddee ëttu mbargaan ñu daldi di sañc dëkk ba daal di koy tuddee ëttu mbargaan daal tànn ñenn ci seeni nawle dëkk fa ak ñoom mbokk yi kon yéen a ko dégg mi ngi noonu man ngeen di ko am fii ci seeni Vision danañ ñëw ak yéen ci parti bu njëkk bi su jeexee ñu ñëw ak yéen ci ñaareelu jataay bi noonu lañ koy toppee ba léeb bi jeex mbokk yi kon wor mi ngi noonu man ngeen di ko topp saa yu nekk ci vision ak alhaji malik gueye te mbokk yi ngeen di wéy di abonné te bu leen di bés colos de notification bi ndax moo leen di man di signaler bépp vidéo bu ñu dugal alhaji malik gueye mu baax mi ci wér gu yaram pajum cosaan waaye nag mu fas yéene ñëw tey faj xel yi ak li nga xam ne mooy jikko yi jaarale ko ci léeb léeboon